dañoo fas yéene delloowaat kàddu bi ak am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ni ngeen ko xamee tey ñu ngi àllarba maanaam mercredi 11 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem seetaan wala ngeen déglu li nga xam ne ni moom la yëglikaay yi indi ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 11 août 2021 dañu ñëw ak ñu yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tey ka xëy dalal nag moom mooy ki nga xam ne jiite woon na fi écurie Fass ñu doon ko wax Mamar Ndiaye wala ñu koy wax Mamar Ndiaye ba daal tey moom la yëglikaay bi xëy tey séqal waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatoo ñu mel ni ki nag mook Ibakan daal tey ñoo séq waxtaan wu yaatu Mamar Ndiaye ñëw na ci lu baree baree bari ca ka nga xam ne moo nekkoon premier tigre de Fass di mbay Guèye te génn àddina samedi ji nga xam ne moom la ñu génne Ndiaye la mu njëkk di wax daal ne li nga xam ne nii daal moo di arène nationale bi nga xam ne moom la ñu tabax bu yàggul te di fa baree ne na li ci war mooy wala li jaadu mooy tur wa ñu jox ko ka nga xam ne moo di Mbaye Guèye maanaam daal ñu dippee ko ko jàpp na tamit ci Mbaye loo xam ne ni daal jàpp na ne Mbaye moom ay mbiram bees koy wax suba ba ngoon mënee su koo jeexal ñëw na tamit ca la la tax sax mbay Guèye nekkul koo xam ne ku ris la maanaam Momar Ndiaye daal tey wax na lu yaatoo yaatu ci mbay Guèye ñëw na tamit ci na mu meloon ci wàllu mbooloo mbooloo mu ko ak na nga xam ne noonu la siiwee woon nee na mbay bu masaan a génn seen kër jëm marché Sandaga maanaam day jàpp ne la koy topp ci ay doomu aadama doo mas a gis mukk koo xam ne dañ koy topp ci siiwaay moo xam Modou Lo la ci jamonoy tey wala muy Balla Gaye numéro 2 parce que nee na fa mbay gi ci wàllu mbooloo ak siiw nee na ñoom ñaar wala boog ñoom ñaar ñii yegguñu fa ñëw na tamit ci la nga xam ne ni moom moo di génn àddina gi mu eh, génn àddina Momar Ndiaye xëy na xam na daal mbay gi li am ba des mooy nee feebar bii nga xam ne moo ko tër moo ko yóbbu moom Momar Ndiaye na ak génn àddina ak Mbaye Guèye nekkul loo xam ne lu ko bett la ndax nag daa jàpp feebar bi yàgg na ak moom ndax nag ak njàmbaaram ak itam ak fitam moo taxoon sax ñu baree baree bari daawuñu ko xam ci moom ba mbir ma mujj nag yegg ci moom foo xam ne mën a seetu ci dara waaye nag jàpp na ne moom nekkul loo xam ne ni daal lu ko bett at lu ko bett la muy génn àddina gi ndax nag jàpp na ne feebar bi xaw na yàgg ak moom yemu ca ñëw na tamit ci Fass ak Ndakaaru xam na ne daal boo bëggee dégg dëgg écuries yooyu ñu boole tuddee ko Fass ak Ndakaaru ne loolu lu jaadoo jaadu la tey itam loo xam ne la maanaam lu yàgg la histoire la parce que na boo nee Ndakaaru da nga naan Fass ne na kon ñooñu bu ñu àndee dañu war a ànd bu ñu warul dañu war a bu ñu àndul tamit war a ànd moom la ñu def maanaam daal li ñu war la leen wala boog la ñu def mooy li nga xam ne ni moo leen war moom mi nga xam ne ni daal moo di Mamar Ndiaye ñëw na ca ak héritage lu nga xam ne nii moom la fi mbay Guèye bàyyi ak taxawaay ba nga xam ne moom lañ ca war a taxaw mel ni ki daal tey Mamar Ndiaye moom ñëw na ci lu baree baree baree bari ca ka nga xam ne moo di Mbaye Guèye héritage ba nga xam ne nag bàyyi na ko fi bokk na ci école de lutte les Tigres mbay Mbaye ma ngeen xam di ab manager moom itam mu nga xëy di wax moom daal ne na pare na ngir li nga xam ne nii moom la fi Mbaye Guèye bàyyi rawatina école booba mu engagé wu ci dal di côté ak fukki loxoog juróom ngir mbir ma bañ a naax saay Ibra mbay moo xëy tey gise nu mel ni ki noonu yëglikaay bi dikk na ci lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci maanaam ba tey ci mbirum mbay gi mel ni ki nag fas phase yu nekk nii daal ñoo xëy tamit di yëgli la nga xam ne daal moo di génn àddina ak Mbaye mel ni ki mbir ma ba tey daal daf lee na jàpp ñoom waa Fass leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci muy saison de lutte bi nga xam ne mooy deux mille vingt jàpp deux mille vingt et un ak Kaolack ak ñaari galaa ya nga xam ne am na fa ci wàllu lambi dóor ak la nga xam ne moo fa am ci lambi mbapat ak la nga xam ne tamit moo fa am ci lambi drapeau chef de l'état ya nga xam ne doon nañ ko fa organiser keneen koo xam ne ni ab promoteur la ñu naan ko Assane Ndiaye mi nga xam ne moom mooy patron wu njom di production Assane Ndiaye nag la mu xam ne daal indi ay galaa yu baree baree bari génn xaalis bu baree bari teg ko moom Assane daal loola moo di bëgg-bëggam ke ñeneen ñoo xam ne nii moom tey jii moom ca wàllum coronavirus ba engagé wu nañu ca ñàkk ya bu baax a baax muy waa Kaolack mel ni ki nag campagne vaccination ba moom tey ci àllarba ji daal daa mel ni Kaolack moom pare nañu nag ngir ñàkku yëglikaay ba mu xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu bu nu demee ca tuusi yëglikaay ba tamit war na fa photo woo xam ne daal photo la woo xam ne wu yàgga yàgg la muy dem si yàlla mbay géey mi doon waxan mi doon wax léegi nga xam ne nii daal jamono ji nga xam ne mu ngi am ñaar fukki nekkoon ci la nga xam ne moo di armée sénégalais yëglikaay bi wan ñu ko ci aw photo mu sol la nga xam ne nii moo di ab beereem ñu koy gis mu nekk koo xam ne jamono jooju ab militaire la woon bu nu continuer dem les arènes mu mel ni ba tey rek yëfi mbay géey wala ay waxam moom la ñu yëglikaay bi tamit andil dinu xamal xamal ne daal moom ak Boy Niang yëglikaay bi xëy na won ñaar ñi ci aw photo ne nu daal samedi jii nu génn avant moo génn àddina dernier conseil yi nga xam ne moom la mbay Gueye mujj a jox ka nga xam ne moo di Boy Niang 2 moo Pikine yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes xëy na dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moom Boy Niang 2 moomu nag Lac de Guiers 2 moomu nga xam ne moom la mujj a bëreel yëglikaay bi ne nag ah soo bëggee dégg dëgg daal écrit walla fi mu nekk nii daa ni seen ay repère dañ koo perte ndax nag Lac mu nekk yeetul nit ña du samay wax nag yëglikaay ba moo ko wax Abdou Diouf tamit fi mu nekk nii daal ci waxi bàyyi la toll te Alioune Seye boo bëggee dégg dëgg maanaam daal carrière am fi mu nekk nii donte bëri na am ndam bu yàggul waaye relance ba daal daa mel ni des na ngir mu jóg jëm ca kaw a kaw kaw keneen koo xam ne ni moom la ko moo di defet muy Ama Baldé les arènes moo nu ko xëy wax mu mel ni defet ba mu amoon ca digganteem ak nees daal daa mel ni defet booba nag mooy li nga xam ne moo ko taal mu takk jéppét ba mu ci jógee moom Ama Balde ndax ku ne xam na ne ba mu ci jógee jàmmarloo na fekk ay mbër yu baree baree bare yëglikaay bi lim na ca Malick Niang ak fa nga xam ne moom la jaar ak ak moom duma ko daan ko ñu ne déet ne tamit la mu won tafaatin bett ko bett goo xam ne tibb tànk ba dal di koy dëj jël rawansam ci guy gi ak yeneen ndam yoo xam ne teglante na ko moom Ama Balde yëglikaay bi moo xëy dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom écrit ba nga xam ne nii ca la Malick Niang ne yëglikaay bi ne na fi mu nekk nii est-ce que du moom moo moom Modou Dia moom moo war a porter cri ba yóbbu ko ndax dumbul ku ne xam na ne mu nga États-Unis toog te Malick Niang tamit ay ata ngi nii yoo xam ne maanaam takkul ngemb wàcc ci géew bi mel ni kon mut ja fi mu nekk nii daal aw sas daa mel ni mu ngi koy xaar woo xam ne ni mooy gàddu écrit yoof yóbbu ko ca kaw a kaw a kaw yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu lamb ja nga xam ne nag moo di lambi simple ja bu fekkonte ne dañoo génne la nga xam ne moo di luuree wax ne dul saanee raw poids ba la ci tey dinu xamal ne daal xale bi ñuy wax baabu Sarr daa mel ni moo nekk ca kanam gaaya ndax nag boo xoolee classement yu baree baree bari yu ñu def baabu saar mooy na ca kanam waaye ka cay topp moom moo di gànja faama bu bitanti mel ni ki daal maanaam lambi lesa ja tamit xale yooya boo bëggee dégg-dëgg wane nañ ca seen bopp bu baax a baax am na beneen xale boo xam ne tamit mu nga ca biir lim ba ñu koy wax jam téeri yëglikaay ba tamit ñëw na wax nu ko mu egsi ko ak nga xam ne moom moo di mbay jóob lu mel ne yeneen xale yoo xam ne daal cité nañ leen ci wàlli lamb simple ji ñu war na ca seen bopp bu baax a baax keneen koo xam ne ni moom la muy def MMA lañ koy tudde muy ka nga xam ne moom moo di Gasmin jaata la mu xam ne nag nee na daal moom li mu bëgg daal liggéey ba ëllëg mu nekk champion du monde ci la nga xam ne nii moom moo di wàllum MMA ba loolu les arènes nu ko xëy indil waaye damay dellu fa nga xam ne nii moom moo di ca sunu lamb le 15 janvier 1946 ba le 7 août 2021 mu mel ni kii mooy 75 ans yi nga xam ne moom la Mbaye Guèye dund yëglikaay bi xëy tey ñëw dikkaatal ñu ci moom ci ay photo yoo xam ne amoon na yëglikaay bi wan nañu digganteem ak lees ak Père Birahim ci aw photo wan ñu digganteem ak lees digganteem ak Matar Ba ministre bi ak docteur Aline Sarr waaye tamit digganteem ak Amadou Kati Diop ba ci digganteem ak mbay jàll digganteem ak Big Pato waaye digganteem ak Luc Nicolaï ak Gris Bordeaux ak Tafa Gueye digganteem ak Tafa Gueye ak lees ak ka nga xam ne nii moom moo di Mbaye Gueye ba tey ca photo wa yëglikaay woon nañu tamit digganteem ak Gris conseil yam ko doon jox yëglikaay bi moo ñëw tey andil yooyu image muy image yoo xam ne yu doy doy waar la waaye image la yoo xam ne fàttali la kon li ñuy wax rek mooy ñaanalaat ko yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana moom mi nga xam ne moo doon le tigre de Fass ñu doon ko wax Mbaye Guèye jëf loolu mooy li nga xam ne moom la yëglikaay yi indi mu mel ni ke deel fi mu nekk nii fan yépp ci mbirum mbay Guèye lañuy bind di ci wax tey moom la ñu tëjee mel ni kii loolu li ko indi nag lenn la rek la maanaam nit ki boo nekkee ci benn mbir danga koy jox fulla danga koy jox jom da nga koy jox fayda mel ni kon Mbaye Guèye loolu moo ko topp ba bi mu jógee tamit maanaam wax ji di continuer loolu moo lay wan ne la waykat bu mag ba waxoon Youssou Ndour sax boo koy jaay faw nga am fulla xulli parce que boo ko defulee ma ñam moo koy jeexal maanaam nit ki looy def na nga ca boole fulla ak fayda mooy tax nga gis ca la nga xam ne ni moom moo di njariñ ba mën caa jariñe loolu la mbay Guèye def moo tax nag yëglikaay bi di sunu làmb tey xëy na dalal ko nga xam ne moom moo di Momar Ndiaye Momar njaay nag ku ne xam na ko mu nekkoon président écurie Fass yaakaar naa bi mu bàyyi la Abbas Ndoye ñëw jiite écurie bi Momar Ndiaye tamit ku ne xamoon na ko ku ne xamoon na ko ci football bi jiite woon na gendarme kon daa mel ni moom Momar moomu nag tey moom moo xëy tey di wax bu ngeen xoolee Momar Ndiaye ngi noonu ngeen koy gis hmm? muy wax noonu. di expliquer di wax lu baree bari ci mbay géey ci wàllum héritage am ci wàllu jomi mbay géey courage ba fitam ak tamit la nga xam ne ni ay jalooreem la di ay jaar-jaaram nekku nit koo xam ne moom Momar jàpp na ne mbay géey ni mu woon jàmbaar sax mu ne su ko xëy di ko wax maanaam Mamar Ndiaye moom moo wax loolu ancien président écurie Fass mel ni kon loolu ngeen gis noonu loolu la Mamar wax te itam defe naa ne waxtaan wi yaatu na moom Iba ñoo ko seex euh, loolu nag li ma leen waxoon sànq rek moo si ne euh, maanaam Mbaye Guèye ah ñun fekkewuñu bi muy bëree mais wax dëgg yàlla boo dee dégg nit ñi ñuy wax ça veut que bi mu ciy toll nekk ci digg làmb di bëree nekkoon bi nga xam ne nii ku amaan ak moom bés da nga xam ne am nga bés ak vrai jàmbaar vrai champion. gaynde pire parce que turu Tigre de Fass woowu ci li ñu ne digganteem ak mbër bu ñu doon wax saa njàmbur la yaa ngi dégg combat bu méttee méttee mi dégg naa dóor ya tar mbay kone kanam gi yépp toj ñu ne dañuy tas combat bu mu ne day bëree jël ndox def si xorom sël moo ñëw jàkkaarloog saa njàmbur di bëreeg moom ba daan ko benn journaliste dégg naa bu newoon RTS defe naa su ma jumlee Pathé Diop la tudd moo ko tudde woon turu Tigre de Fass ndax jom ja wane kera ndax ngor ga mu wane kera loolu nag mooy ngar mi mooy fulla mooy fayda kon yàlla na ko yàlla yërëm te seede yi nga xam ne moom la nit ñi di wax si moom a ah, defe naa itam seede nit seede yi seede yu baax la ndax nag am na loo xam ne soo ko jëfulee kenn du ko wax yëglikaay bi moo tax tey mu dikk ci lu mel noonu leneen keneen koo xam ne ba tey ci keppaaru mbay géey la gémmi muy Ibra Mbay di doomi Faas moom tamit la mu xamle gis ngeen nee na héritage bi nga xam ne moom la mbay géey bàyyi rawatina école les Tigres Ibra Mbay nee na ah pare na pour engagé wu pour téeku maanaam teg ko ci aw yoon encadré xale ya di ci def la nga xam ne moom la ca mbay géey bëggoon ak lam ca xalaatoon yaa ngi dégg Ibra Mbay moom moo waxee noonu kon defe naa ne loolu itam bu ko defee def na la ko war ndax am na mbir moo xam ne xulle boo ko defee des du maanaam du soxla jaajëf parce que la tax mooy da def li la war rek nit nag boo defee li la war da ngay am la la war rek loolu moo ci ne kon Ibrahima Mbaye bu sàmmee héritage mbay gi rawatina école les tigres defe naa ne def na li ko war ndax école les tigres feeñal na ay xale yu baree baree bari tigre nu somoon ci la bokk ah Mbaye Guèye Junior ci la bopp Bouba Fit ci la bopp Mam Mor doomu Faas ci la bokk ñoom amandaw ak yeneen yi mbër yoo xam ne ay champion lañ ci làmb ji ku ne gis na Mam doomu Faas ba mu gëjee am fi defet hmm? ñoom Kara Doole kon defe naa Ibrahima mbay tamit dëkk Faas Mbaaw googee mbay Guèye dëkk fa la dëkk kon defe naa tey bu jëlee héritage boobu engagé wu ngir sàmm ko dañ ko naan def nga li la war waaw te comme li ñuy wax rek ku def li la war moom loo cay yaakaar du. la la cay fekk mooy njariñ rek saison de lutte 2020 jàpp 2021 ci région de Kaolack lutte avec frappe ba mbapat ma drapeau chef de l'état ba ak ya am yëpp yëglikaay bi moo xëy tey du diggaat dikkaat yi ngeen gis ko noonu mel ni Kaolack tamit daa nekk capital boobu nga xam ne moom mooy capitalu Saalum ah ak làmb mu ne su leen tàqalee ndax nag boo duggee ci àll yooyu da ngay gis que ni foofu làmb dëgg-dëgg nga fay gis àllu Saalum boobu jëm ba siin Saalum foofu làmb pure dire moo fay am defe naa dëkk bu Mouhamed ndaw tay seen dëkk rek dafa doy kon ça veut dire que ren nag drapeau la ca metti mooy dañ ko organiser ba pare sama waa dëkk ñëw jël ko muy waa Bawal waa région de Diourbel la ko nangu ci ñoom xulle mm, wala yéen bokk ngeen sax foofu kaw Kaolack yéen waa Nioro foofu ngeen bokk kon yéen ñun ñoo leen fekk si ba pare duma leen yóbbu kub ba xule loolu la yàlla dogal muy nuyu waa Nioro yëpp Habib waaw kon nee leen ñu félicitation rek loolu mooy li nga xam ne ni moom moo am Assane Ndiaye patron wu Njom di production ah Njom di production Assane Ndiaye moom li mu bëgg nee na saison bii nu jëm incha allah rabi yàlla nañ ko fekkete tal ko fas na yéene teg ay miss yu ama am solo ci làmb ji ah lool nag yàlla na nga ko réussir yàlla na nga ko réussir muy loo am solo parce que tamit bon làmb moom ku ci dolle ko dañ naan la ahlan wa sahlan rek dalal ak jàmm. parce que li tax mooy euh, mbër yi bëri nañ te journée yi buñ ñu mu gën a yokk pour mbër yëpp man di bëree da am lu ñu mën a yóbbu seen kër ba tey waa Kaolack yi tamit tey daa mel ni ci wàllu Covid 19 ba daal Kaolack tey moom ah mercredi ji moom daa mel ni fas nañu yéenee dem nag ñàkku ji encore une fois ñàkk yi moom ku ko man moo gën de moo gën waaw tubaab baa ko wax mieux vaut mieux vaut que prévenir que de guérir ah du noonu la. kon na leer fagaru moo gën faju olof Njaay waxe ko noonu <laughs> noonu la fa demee kon nañu dem ñakku ji mooy li wóor voilà dina matt ak du matt olof nee na bul jox sa loxo ba tey bu nu jógee foofu dem les arènes les arènes lañ fay fekk ba tey mooy mbay géey ngeen gis ak Boy Niang Boy Niang doomu déggul yëglikaay bi nu xamal ne samedi ji nga xam ne laata génn àddina gi di am dernière conseil wala dernier xalaat wala dernier maanaam ndénkaan yi Mbaye Guèye mujj wax ak Boy Niang conseil yam ko jox booy Niang di xale boo xam tamit ci keppaaru làmb la juddu ndax déggoolee sama baay booy ñaa bu Cees mi mu tuddee boppam di nijaayam ah kon defe naa ne moom itam ah doomi mbër la da koo donn ci geño donn ko ci meen loolu di lu foor a fort a foor kon bu ci yëngu bu ci boolee fulla da ci xalaat nañu dem ci fu sori te gis nañ ci moom fulla boobu defe naa kon bu ko Mbaye xoolee ba jox ko ay conseil ah bokk ci mujj jox ay conseil loolu lu rëy rëy la te lu jafe-jafe jafe la am ko yombul kon booy ñaa yaakaar naa ne loolu dina ko mën a gunge ci li des ci carrière am ci li des ci carrière loolu mooy li am loolu yëglikaay ba mu xëy ñëw dina ko wax leneen loo xam ne ñëw nañ ci. égri wàlla bi nga xam ne ni daa mel ni daal ci perte repère la ñu nekk yëglikaay bi wan ñu Lac de Guiers rek Abdou Diouf mel ni kii Lac de Guiers de yëglikaay bi ne na moom fi mu nekk nii ah daa mbër moo xam ne daal maanaam yeyeetul nit ñi ci façon bi muy bëree loolu nag suñu yëglikaay bi les arènes na ko wax Abdou Diouf moom mu ngi doon wax waxi bàyyi bi ko Gris 2 daanee Alioune Seye donte daan na Issa bu yàggul waaye maanaam fi ñu ko doon xaar dëgg yegg seegu fa moo tax yëglikaay bi nag xëy samp laaj boobu égri waalo ak ni mu xaw a amee ralentir ah loolu nag mooy sport ah Guerre 2 bu dee côté la man dama naan euh, bi mu fi bëri ak Modou Lo Modou Lo ko par ay avertissement bi mu ci jógewaatee ñaari sorties yi mu jot a def muy suma jumla diggante mag euh, ki nga xam ne ni moom moo booy Boy Niang diggante mag Eumeu Sène yépp ndam la ci amee te ndam yi mu am ndam yu valable la ci làmb parce que ndam la ko Modou Lo gagné woon moom ndam lu mel noonu muy ay avertissement mu la gagné Eumeu Sène recours mbër gagné na ci mbër recours tamit la gagné Boy ñaa kon defe naa ne kon bu bu nee per de vitesse bu bu convaincreul tamit xëy na dama naan xëy na ñi ko supporté wul waaye ay supporter am moom ah mën nañoo wax ne seen mbër jëre parce que gëj na leen indil defet te loolu tam lu am am solo parce que ay réglement la yu ñu fi teg maanaam lii lii la lii lii la lii lii la buñ la aatee lu la neexul nga jaar fii pour dindi ko moo tax nag ñaari ndam la teglante moom Lac de da nañ ci bàyyi xel yaa ngi dégg parce que làmb wal gi gàng da ci am dóor mu daanu am ci waaye recours ba jot sa ndam boo gisee ne da daan arbitre ne daanu nga recours jot sa ndam ci la bokk te loolu la def contre booy ñaar moom Eumeu seen itam ku ne gis na ne moom moo gagné Eumeu seen par ay avertissement Abdou Diouf nag Kanta moom bu dee ci wàllu bàyyi gi ah dikkaat na bu yàggul ne moom waxul kenn day bay yooyu. làmb nag li ci ne mooy sport la bi nga xam ne sport individuel la yow kese yaa koy def yaay ne ci géew bi li nga yëg ci sa yaram yaa koy xam boo waree continuer xam nga soo waree bàyyi xam nga moo tax du ñu soxla soxla ñun bokk duñ ne kenn jàppal wala bàyyil waaw licencié ka daal li ci biir a ngi ci biir euh, Alioune Seye tamit maanaam li ñu wax ci moom mën nañ ne. ci benn côté boo ko xoolee danga naan dëgg la ndax Alioune Seye de génération ñoom Modou la heure bi waroon na fekk tey mu dépassé fii ci côté làmb mais nag dafa am li nga xam ne nit ki di ko bëgg mais yàlla du ko dogal ci yow Alioune Seye de mbër dàq koo bëri loolu moom lu leer naññ la te noonu la mën a xeexee waaye nag est-ce que yàlla mi bind moo yemale yemalewul déedéet déedéet Modou Lo am na ñu mu départ andool am na ñoo ko jëkk a départ tey Modou Lo le roi des arènes te ñooñu mënuñoo fay ko 10 si làmb Balla Gaye 2 même chose Gris Bordeaux noonu keneen noonu ça veut dire loolu yàlla mooy doole noonu ay mbiram yaa ngi dégg pourtant Alioune Seye 2 doone day ñëw ci làmb du entraîné doone day taxawaalu ah xamuñu ko ci lool bokk mais yàlla moo tax moo dogal xëy na carrière am nii keneen koo xam ne nii xale la euh, muy Ama Baldé itam daa mel defet ba mu amoon ci nees yëglikaay bi nag defante defante defetam defetam ak nees daa mel ni daal moo ko ngandeloo moo ko màggaloo ndax ba mu ci jógee ku ne gis na fa mu jaar ci ay combat yoo xam ne nii ah na mu gañee ama neex jóge ci dugg ci tournoi TNT bi daan tafaatin daan guy gi daan sos moom ama ñu ne fa la yem ñu jox ko Malick ñang ñu ne Malick dina ko rey ama far duma Malick daan ko jóge jël Papa Sow daan ko kon ama moom itam la ñuy wax doomi mbëri jàngil bëri yàgg yàgg des na la ñam daa mel ni daal taxawaay boobu moom la amee moom Ama Balde muy xale boo xam ne bu jara bàyyi xel la Modou Dia tamit ah yëglikaay bi ne na ah est-ce que wartawoon nam porte Yoff geenu ko parce que dumbul bëreetul Malick Niang gëj naa bëri ay attaques yi bëriwul kon Modou Dia ah actuellement war na mën a porter bi normalement donte am na defet bu yàggul ci diggante mu déem ak caat mais xale la boo ne bu jar a la moom Modou ja te itam xam na li ko manqué woon yaakaar naa si digganteem ak caat ba mu am defet bu gënee liggéey yaakaar naa ne incha allah rabbi mën na yóbbu écrit bi fañ ko bëggee loolu tey moo fi dikkoon ci yëglekaay yi li ma leen di mujj li ngeen di mujj gi ci bi noonu rek mooy photo boobu sunu làmb indi tey di ci rendre hommage Mbaye Guèye gis nga jataay yooyu diggante mag duuba mu mel diggante bu yàgg la moog lees loolu bu yàgg yàgg la di gis ngeen diggante mag Matar Ba ak ki nga xam ne mooy docteur Alioune Sarr ancien président CNC gis ngeen diggante diggante ak Père Birahim loolu tamit du lu yàgg mel ni kon daal loolu mooy àddina gis nga àddinaa ngi nii demal maa ngi ñëw la gis nga foto yaa ngi koy gis da foog ni sa jëmm jaa ngi fekk na sunu borom bi yóbbu na ko kon li ñuy wax foofu rek mooy nañu rafetal soow mi te duggee ko marché yaa ngi dégg àddina guddul yàggul wallahi lasim muy man mu yéen ñi ñu seetaan mbir yi na rafet euh, parce que damay seetlu lu nga xam ne xulle jaru ko nit ki même bu xamee lu ñaaw ci doomu aadama li gën mooy nga suturaal borom na nga koy suturaale mooy bu dee sa nit la woo ko ci roq nga waxtaan ak moom yedd ko ndax koo yedd ci roq bu dee goro dina la déglu mais ku képp koo yedd ci pénc dina fipp te dina jàkkaarlook yow même bu wàccee yoon kon li am solo mooy nañuy nañuy suturaalante di mayante jàmm ndax loolu dina tax yërmande yàlla wàcc sunu kaw parce que nag jafe-jafe yi ñuy dund yépp muy metti ci ñun boo bëggee dégg dëgg am na ci lu lu ci baree bari na ko almaxtum waxoon na mu ko waxoon yàlla na yàlla yokk ay leeram maanaam sunu xol yi la xol yi nañu yénente jàmm di ko waxante te bàyyi yàqante bi waaye koom jeeg ko yàqu ko koo xamulul sa di nga ko sosal ba waxal ko lu ñaaw yaakaar ne loolu mooy àddina loolu nax sa bopp la yàlla nañu yàlla defal jàmm def ko ci àddina bi di jaalewaat waa ahlul laayen ak waa cene ba waaye di ñaan sëñ Muntaxa tey ci wooteem bële nga xam ne moom la woote Tuubaa ci xasida yi yàlla na yàlla def barke xasida yu dàq fi lépp luy musiba ba balaa si àddina bi yépp xulle di la jox dig daje suba incha allahu rabbi nuyu suñu jongama yu ñaaw lii toog maa ngi leen di bëgg yéen tamit